Allo Dakar TV je euh, émission une émission bu grand débat ñu li nga actualité ci mi ñu dalal Abdoulaye Diop di économique di président association SMD muy Sénégal en même temps aussi directeur cette vision sans égal monsieur Abdoulaye Diop ñu ngi lay maa ngi lay fay sëñ Assane di jël euh, di nuyu aussi euh, sa directeur général mooy monsieur Fati di nuyu aussi technicien yi nga àndal tey jii pour ñëw def émission bi waaw euh, man Abdoulaye Diop laa tudd je suis un opérateur économique chef d'entreprise nekk en même temps l'administrateur du cabinet sans égal Nous avons fait des œuvres œuvrer ci bourse parce que nous avons constat au niveau de l'éducation que la formation coûte un peu cher aux parents d'élèves Nous créé un cabinet pour pallier à cela pas jàppale parents si c'est une formation Mais il may a des bourse ñu dem dafi formation à moindre coût Nous avons au moins une ñi éducation bi je crois que de mon cabinet sans égal cette vision promoteur le promoteur agréé par l'État pour les programmes de logements sociaux nous n'avons que ci œuvrer pendant 3 à 4 ans Si nous les clients yi confiance Nous xaar état pour nous réagir euh, par rapport à l'assiette foncière pour nous démarrer le programme. pourquoi SMD agréé? Euh, en tant qu'opérateur, yàlla bu la suturaalee nga jàngee ci dëkk bi amee fi lu ne ci dëkk bi yàlla suturaal la ci dëkk bi lii sa devoir mooy nga jàppale waa dëkk bi parce que loolu dong lañu am booy dund ci dëkk yàlla suturaal la te gënuloo fi ñi ñi ndey gënuloo leen bàyyi gënuloo leen juddu dàquloo leen dàqoo leen jàng bu la yàlla suturaalee rek ba nga am lu ëpp la ngay dundee mooy def la séddale tey jii am nañ xalaat ci nan lañuy def pour dimbali population bi man ak samay morom moo créé association bi nga tudd mooy SMD association bi biñ ko créé léegi ça fait à peu près quatre à cinq mois parce que au mois de mars lañ ko créé après les élections yàlla suturaal ñu at euh, fondation mooy 221 la fondation 221 avons am équipement médicaux d'une valeur de 265 millions. millions beaucoup ci centre de santé mooy Sami municipal Nous avons des foofu ñu amaat avons euh, partenaires un xam ñu Nantes les Canaries de l'Espoir Nous avons deux conteneurs de 40 pieds pour les daara nous nous avons nous œuvrer ñu ce di domaine au niveau de la santé au niveau de l'éducation au cadre de vie surtout di liguey ci fan bu nek au sein de l'association biñ fi commencé ak léegi peut-être buñu ñu évaluer ci xayma ci copar li nga xamantene mom la association bi euh, jàppale ñi ñi ci aide dépassé les 500 millions en cinq mois kon donc ñu ngi japp né ñu ngi gorlu di contribuer ci développement au localité bi. mais monsieur Ablaye Diop gis nañ ni euh, fan yi boo Ablaye Diop ñun responsable politique. lan moo lan moo ban ban motivation nga am ba dugg ci politique ba nekk responsable fii à Grand ak tur wi ak maanaam li nga xam ni daal bokk na ci buñ ñëwee responsable politique à Grand Yoff seen ñëpp seen xel dem ci monsieur Ablaye jóg wala dafa am ku nekk sa gannaaw wala lan moo tax a jóg loolu. waaw damay jàpp ne dañu naan responsable politique mais damay jàpp tout politicien est responsable parce que. ñun ñi nga xamante ne ñun lañ jàpp ne ñooy responsable yi ñii ñi peut-être dañoo am yaakaar ci ñun ba tuddee ñu ay responsable mais eux aussi c'est des responsables man loolu laa jàpp politique nag li ma ci dugal mooy li ma la wax boo nekkee sax ce secteur di fa œuvrer dans le cadre social yaa ngi politique politique nag nattu la ci man parce que euh, faj meer la woon gis naa ñu doon néewal doo doole son excellence monsieur le président de la république actuelle mooy ba nga xamante ne jóge na primature ñu yóbbu ko assemblée si la may yàlla booleeg moom ma xamanteeg moom xamante ne kii dañ koy néewal doole jaay doole la woon rek ma topp ci ginnaawam jour bi mu démissionné ci këram la ma fekk maa ngi toog ak si la Sylla journaliste ñu toog ci wetu piscine bi di naan café depuis loor laa commencé ànd ak moom depuis dekkal ngor di ànd ak moom jusqu'au jour d'aujourd'hui di ko jàppale nag ci côté yu ne à ma manière parce que nag dama jàpp ne un responsable politique doo xaar rek pour ñu jox la nombal tànk pour nga mën a liggéey liggéey nit ku nekk am na xelam am na xam-xamam te am na ay moyens pour développer commune pour développer dëkkam man ci côté boobu laa nekk fa fànn sociale boobu ma nekk si laay rey sama xar sama tànk tubéy xam ne président mënul egg fépp mais am na ñu ko toogal ci gox goxaat yi ñoo xamante ne nañ ko jàppali ca liggéey ba muy def defe naa loolu moom moo ma dugal ci politique te ci loolu laay œuvrer moo tax tey jii bu ñi ñi naan job sociale c'est parce que dama cee def lu am solo moo tax ñi ñi tudd ne job social. léegi nag da nga dugg ci politique xam naa ñu xoos ci tuuti bu ñëwee Ablaye Diop responsable politique à Grand mais Grand Yoff dafa bëri ay responsable te xoola salubrité bi nekk Grand Yoff xoola salte bi xoola caniveau yi te Grand Yoff bokk na ci quartier yi gën a salte léegi ci Ndakaaru te bëri ay responsable trop nag ba pare et en plus xool ni liggéey bi des na xamuñu ndax ci maire bi la xamuñu ndax ci gouvernement bi la yéen en tant que responsable ban taxawaay ak ban gis-gis nga am ni Grand yof lu mel nii war nañ ko fu mën a def pour mën a jóge ci lu mel nii. d' abord damay euh, kontaan ci question bi nga ma posé parce que bu ma toogee euh, mairie da nga ne responsable politique yi bari nañ fi naam responsable politique yi bari nañ fi mais responsable politique nga wax mais c'est pas le magistrat de la ville le premier magistrat de la ville c'est la maire tey jii bu ñu nekkoon mille responsables au niveau de la commune bëgg tey jii canaux à ciel ouvert yi ñu bëgg ko def sans l'aval de la maire sans l'aval du maire de la ville de de Grand-Yoff de la commune de Grand-Yoff kon donc ñun responsables, amuñu utilité te je suis contre ñu naan maire bi beaucoup ci pouvoir moo tax mënu développer maire bi ci xam-xamam ci xarañteem ci projet de vie am war na mën développer commune sans l'aide de personne avec l'acte 3 de la décentralisation il a la possibilité d'avoir des partenaires teg ay projets bancables fiables partenaires yi ànd ak moom liggéey ci ñoom mu nekk partenariat gagnant gagnant entre la mairie et le partenaire financier et technique man je crois que maire bu am vision bu mel noonu war na mën développer commune am mais bu amut vision bu mel noonu dañ fi yag rek wante commune bi toujours parti bu ñew jall keneen ñew même chose lay doon parce que on n'a pas eu la chance d'avoir un bon maire man loolu laa jàpp. acte trois décentralisation bi nga wax ni dafa am fu mu yam mais nit ñi dañuy jàpp ni tey maire am na yam amna ci lo xamni nak gouvernement mo koy mo koy àggale te nak bu fekkee ni tey ji maire bi bëgg na liggéey dara te nekk opposant au pouvoir est-ce que kooku liggéeyam ak lim bëgg def ci ci ci commune est-ce que dina ko man il y a plusieurs manières de développer sa commune man li nane acte 3 dafa am dafa am ay compétences transférées dama ci ñëw ci bu gatt bu ndaw muy école yi éducation compétences transférées mais tey jii boo demee ci ouverture des classes mairie yu beuri seen école yi inondé na ñu naan état daf ñoo wara dimbali où est la mairie ta si compétence transférée yi la bokk ci éducation la tey jii au niveau de la mairie ñu ñëpp xam nañ euh, euh Grand Yoff commune bu démunie la leer na ñëpp c'est le Sénégal en miniature xet gu nekk dajé fi souffrance bu metti nekk fi tayji nous ñu jëm ci ouverture au moins au sein de l'association ñun xalaat nañu né tayji élèves yu bari dañ leen di problème fourniture ñun dam nañu ba tayji ci ouverture au moins dinañ équiper équipé 2000 élèves dinañ leen jox fourniture complet loolu c'est des engagements c'est la foi il faut y croire parce que doo xaar yëpp ne diw moo may jàppale yow juga nga def li ngay def ba ñii ñi fekk la ci mairie aussi du tok nan état moma bloqué fi c'est parce que politique de vie bu amoon politique de vie bu fiable du xaar état ci dara parce que day am ay projet fiable yo xam day am ay partenaires yu ko mën conduire projet bi mairie bi di ci gagner parce que mairie dafa am patrimoine bu amé patrimoine du xaar daraay kenn pour mën liggéey je crois que tant que mairie damuñu bay xalaat ne ñoom war nañu am immeuble trois immeubles yoo xam ne mairie bee ko moom patrimoine u mairie bi la buy dugal des rentrées d'argent consé conséquent yu mën a développer commune bi mooy mairie yi liggéey xaaral taxe rek ba xam bu taxe ñëwee fekk yow nga am fanweeri bor ak juróom-ñaar doo liggéey doo toppatoo sax population bi. mais en tant que responsable yow mi dëkk Grand Yoff juddoo fi yaroo fi màgg fi xam ni Grand Yoff di doxee euh, yàlla def nga nekk aussi di ànd ak nit. muy le président de la république ngay liggéey ak moom di liggéey aussi ci wàllu social yow lan la waa Grand Yoff di xaar ci yow. je crois que waa Grand Yoff actuellement li ñuy xaar ci man commencé naa ko déroulé mooy toog nañu mooy comme li ma la wax gënuma ñi ñu juddu yàlla suturaal ma ba jox ma lu may lu ëpp li may dundee mooy def ma séddaleloo ci loolu laa invité waa Grand Yoff yëpp set bonne volonté yi fi nekk. ak ñi nga xam ne gëm nañu développer seen commune ñu àndandoo créer association mooy SMD Sénégal moo ñu ko jaral ñu ne Sénégal moo ñu ko jaral d'abord ñu ne Grand Yoff d'abord pourquoi Grand Yoff parce que ñi nga xam ne ñoo initier projet bi Grand Yoff la ñu dëkk ñu ne kat problème foo lu mu bari bari bari kenn ëppalewu ci waa Grand Yoff ci la ñu mettre teg ni ay programme si la ñu ñëw ci relever plateau médical bi njëkk def premier jet bi dem ci daara yi dem ci sport bi dem un peu partout ci domaine bu nekk ba ci cadre de vie ñu ngi ciy dem parce que mooy li ma la wax rek Grand Yoff xat na kenn mënu ko amul extension tey jii boo demee côté côté bële Padois la nga dem bii après Nord Foire la nga ñëw nii côté Liberté 6 la nele boo ko demee côté Yaraax la kon donc fan la Grand Yoff de egg fan extension Grand Yoff amu fi te y a plus de trois cent mille habitants Grand Yoff rek ngay dugg ci kër suba teel taxaw ci buntu kër gi cinquante ou soixante personnes génnee ci benn kër du étage rez-de-chaussée la y véritable problème ci cadre de vie bi ci loolu association bi waxtaan nañ ci gis nañu un partenaire boo xamante ne il y a une on très grande espace boo xam ne dañuy fexe nan lañuy ñuy fexe waa Grand Yoff doomu Grand Yoff laa wax de ñu am ay terrain d'abord ñu tuddee sax site boobu Grand Yoff 2 ñi ñu mën a wàññeeku am d'abord patrimoine nit day am dara lu mu moom. déggoo li ma la wax dama ne la Grand Yoff boo demee au nord est ouest nord sud yëpp ay commune la yu ko wër. kon Grand yof mënul nek extension il y' a plus de 350 000 habitants Quand le la Grand Yoff rek train genn taxaw ci buntu kër fajar c'est plus de 50 personnes train ci faire kër kon c'est faut surpeupler. donc il va falloir chercher des mécanismes yu ñu pallier à cela Moi, je la on a des partenaires on a un très grand espace on compte créer le Grand yof 2 mooy ça veut dire que les fils de Grand Yoff tey jii même bu dee terrain boo xam ne à moindre coût la ñu fay ko cinq ñoo xam mais quand même doomu Grand Yoff commencé kat ne titre bii de maa ko moom te mu doon bénéfice su Grand Yoff bu yàggee ñii am terrain dinañ tabaxi bu ñu tabaxee genn wàll famille bi dinañ dem foofu dina tuuti dinañ désengorger tuuti Grand Yoff ñu mën a dem ci assainissement dem ci salubrité bi mën a au moins liggéey commune bi correctement est ce que yaakaar nga ni yow sa bop wa Grand yof war nañu mëna jël na Grand yof teg ko sa loxo pour nga mëna développer nak li nga xamni ni moy moy moy grand lolu euh, dama nan sante yalla la parce que Grand yof mom li ma intéressé au niveau de la commune de Grand yof moy commune Grand yof développer parce que nak fi la sama njabot nek fi laa dekk duma fi jógee kon donc képp koo xamante ne donte chinois la te mën a développer Grand Yoff damay nekk sa ginnaaw jàppale la mais bu ma gisut lu ma tane ma jël ko liggéey ko loolu daal laa gis ne tey jii au niveau de la commune de Grand Yoff tey jii bu ñu demee euh, euh, ci élection yi ñu jëm daf ci am ay avantages yoo xamante ne ñu ngi koy junju pareegul mooy suffrage direct tey jii dinañ mën a xam réellement ñan ñooy porté wu pour nekk la maire de Grand Yoff bu ñu toogee war nañu mën a waxtaan bu ñu demee ba choisir les candidats candidats yi war nañu mën a am projet de vie toog waxtaan xam seen parcours xam seen cursus xam ndax kii mën na koo liggéeyam déet ndax waa Grand Yoff mën a xam ki ñuy dénk ku mu doon. mais monsieur Diop am na lu xew-xew bu am barki démb rek muy actualité yow nga dëkk Grand Yoff en tant que responsable nekk ci camp au pouvoir mais mu am koo xam ne nag mag la ci yow doomu Grand Yoff la. barki démb ñu bàyyi ko ci lu nit ñi xaar ak lu ñu xaarul mu bett ñu bari muy monsieur xalifa Sall ex de la ville grande ville de Dakar kooku moom ci génnam bi yow en tant que doomi Grand Yoff en tant que responsable ban ban yëg-yëg nga ci am. ak lan nga am loo xam ne mu ngi ko wax ci loolu nga xam ni mooy. sort waaw loolu euh, vraiment satisfaction totale laa ci am nga ne ñit ñi ñu ngi ko doon xaar am ñu ko xaarul man jamais attendé man maa ngi ko doon xaar personnellement parce que euh, émission il y a moins d'un mois def naa émission Lamp Fall TV boobu dama ñaan la son excellence monsieur le président solennellement moom mi nga xamante ne tey jii moom dong moo am droit wu grace ñaanoon ko pour mu gracier ko donte léegi procès bi jam na bëgg ba ñu clôturer dossier bi je crois que appel ba ma defoon yàlla suturaal na ma ba am na te loolu laa doon ñaan xalifa c'est un frère dama naan c'est le ba léegi man damay jàpp ne c'est le maire de la ville de Dakar parce que tey ji moom la population bi moom la département de Dakar wóolu tegoon ko fa ba mandaam di jeex man dama koy jàppe comme la maire de la ville de Dakar donte nag li may wax. Euh, lu nek heure bu nek natou bu ñewé rek ñëw na man damay japp né natou la bu waron am ci parcoursam jaar na ci yalla génnee nako ci jàmm ak salam mu retrouver ay njabotam ci jàmm at salam diko inviter nak parce que nak aduna du xex kese da nga nek ci fo xamantene ne développer kessé mo la ñor je crois que war nga dem waxtaan ak njiitu réew mi waxtaan ak responsable politique yépp ñu doon benn xool ku ci nekk am na xam-xam bu mu mën a développer dëkk kon donc bu ñu fédérer seen force muy Khalifa Sall muy Idrissa Seck muy sunku muy ku ci nekk am na lu la yàlla may toog leen autour d'une table ngeen waxtaan au oh, la son excellence le chef de l'État ñu toog ñu waxtaan xamante ne ñun dëkk bi moom moo ñu ñor développer dëkk bi moo ñu ñor wërsëg nag fu nekk lay jóge mais kay yàllaay fal yàlla noppi na démb tey doog a ñëw xëccoo daf tentamaar créer lu nekk taxul yow boo warut falu nga falu kon donc nañu gëm yàlla xam na yàlla noppi na démb tey doog a ñëw te ñu jéem a organiser wu fédérer force yi ñoom j'invite tous les responsables politiques tous les chefs de parti ñu toog tourner ñëw autour de l'essentiel ñëw jàppale son excellence monsieur le président de la république mu liggéey bu pare bu ko fi yàlla jëlee ku mu teg ñeneen ñëpp ànd ci ginnaawam ñu ñu liggéey dëkk bi il est temps. mais gis nañu barki demb ci euh, bi Masaalikul Jinaan bi ubbee Euh, sëriñ taxa Mbacké xalif général de Mourides ndajale na ñaari mbokki taalibe muy le président de la république monsieur Macky Sall ak euh, le président Abdoulaye Wade ancien président de la république du Sénégal mu boole leen mu doon ci discours am lim ci wax dafa mel ne diggante doom ak baay ñu ñu ñu ànd juboo yow juboo boobu ak ànd googu ban ban ban ban xalaat nga ci am. Euh, dañ ci kontaan. di ko rafetlu di ñaanal kilifa gi mu yàgg fi lol te wer di waxat encore jërëjëfa seigne Touba mais diggante baye ak dom bu dee réeroo amoon na mais wut lu nit mën gis ci bëtam moy bii bu officiel bi ñi ñi gis seen mais man dama japp man man la engagé man lay jub gëm naa ne baay beeg doom bi même bu ñu réeroo woon soriwut noonu parce que réaction euh, l'ancien chef de l'État monsieur Abdoulaye Wade au courant des élections présidentielles bii passé xam naa ne baay bi dafa bëggoon doom ji gañewaat waaw baay bi baay bi dafa bëggoon doom ji gañewaat parce que bu ñëwee ci discours am bu njëkk mu ne gagné à 56% d'abord. da ngeen di sonal opposition pour a ne carte tout en sachant élection amul Macky continuer ku am jàngat di il fait tout pour son fils reste au pouvoir ban lecture politique moom la ci am parce que c'est un fin stratège moom dong nga ko xam mais bàyyi bek dom ji man dama japon ne sori wuñu won nonu peut-être li djubo officiellement ñi ñi tek sen sen sen beut ñuy sant seigne muntaha bi nga xamantene yalla ci mom la ko jaarale suñu kilifa gu maggi gi di ko rafetlu bu baakha baax mais man dama japp ne bàyyi bek dom ji sorinte wu won euh ci bir djubo bi genn nañu euh,

pour que dialogue boobu nag ñu mën a toog ñun ñëpp defar réew. waaw son frère Karim wad bi ngay wax parce que bàyyi beeg doom ji laa wax ji ko kon Karim frère la ci moom son frère doa moom moo ko xam parce que bu doon réellement politique gu Sénégal ñor na ko même bu dee dañ ne ko ji condamné lañ la à tant d'années de prison gracié nañ la nga dam doa ñu ne amende bi la bu dee dëkk bi ñor na la dëggantaan di nga lijjanti amande boobu sax walla nga ñaan dérogation wala nga ñaan moratoire ñëw continuer sa politique ñu xam ne dëkk bi ñor na la mais dama gëm ne kari moo pareegul nit ñi naan suba dina ñëw ginnaaw suba man non Karim moo parewul pour ñëw Sénégal man loolu laa gëm il est dans ses activités ñii di ko wax même secrétaire généralu euh, PDS biñ ko def sax man pour man papa jé bëgg dom ji rek mais lolu erreur monumentale mën ta wessu mais japp nga ni bu jubo bi amé Karim warna mëna del soit rew ben ba paré deuxièmement bu Karim ñëwé est-ce que Karim warna mëna tay ñëw ci dialogue bi tok and ak le président pour mëna pour mëna nak liggé ci rew mi parce que jubo aussi bu amé nit ñi ñi nga xaar ni and warna mëna am Pas que tay boo xoolee tey parti démocratique ci actualité yi euh, le président ñëw na changé na bureau bi wala boog am na lu mu changé ci bureau bi mais Karim en tant que secrétaire général wala boog ñu jël jiital ko ci parti PDS mais loolu war naa mën a nekk parce que parti PDS aussi ñoo bëgg Karim. Karim tey jii bu papam demee négocier moom mu dellu si si dëkk bi man damay jàpp ne Karim kenn waru koo dénk réew. parce que kuy xaar un grand un grand gaillard comme Karim un responsable comme lui tey jii di xaar papam juboo dem négocier ko pour mu dellu si réew mi ku amut fit mënuñu loo dénk réew dama lay wax dafa am leen loo xamante il faut nit ñi bàyyi xel parce que man je ne peux pas être un responsable nous diriger sama mandat jeex ma jug ñu accuser ma à raison ou à tort juger ma génnee ma dëkk bi tey jii ma toog dowaa ñu ne ma lii mooy sama amande tey jii bu ma bëggee dellu si dëkk bi te aw loolu damay ñëw négocier temps la lii laa mën a dugal li ci des dafa rel leen ma ko nii ma toog xeex ak groupe xeex xeexal sama bopp lii nga xamante ne moom la ma sénégalais yi war a confier mais damay toog nekk ci whatsapp ak facebook sama papa ñëw fii négocier ne kenn bu ma jàpp bañ a ne wala baal nañ la nga doog a jóge fële ñëw ne da ngay diriger sénégalais yi yan sénégalais lay diriger bu boobaa bu problème amee ci dëkk bi du moom moo koy régler de kon bu boobaa kuy xaar un responsable comme lui muy xaar papam négocier ko pour mu ñëw ñu bañ koo jàpp man dama jàpp ne kooku mérité wul sax ñu dénk ko commune. monsieur Diop Sénégal fi ñu toll nii métti na quoi qu'il arrive lu mën a xewit ñëpp xam nañu Sénégal métti yow ban gis-gis nga gis nag boo xam ne war nañ koo mën a def pour que dialogue national bi maanaam ñu def ko ñépp nekk xel yépp toog maanaam xol yi ànd nan ñu mën a xool nan lañuy def pour que réew mi dox la parce que lu mën a xew moom réew mi métti na moom. li ma lay wax dialogue national boobu nit ñi dañu gëm yàlla ci wax mais gëmuñu ko ci xool. lolo ja lolo tax dialog national bi toujours day difficile dañu yaakar buñu ci bëtu nit ñi rek liñu ñu soxla dinañ ko am te dama ne len yalla soti ne demb tay doog a ñëw ki wara remplacer Macky Sall yalla xamna ko bu yagg kon donc budé lenyu ñun ay responsable politique lañu gëm ne war nañu mëna dafar réew mi parce que nak kenn forcé wu ñu doon ay politiciens kenn am na ku nekk ci ruqam di liggéey liggéeyam affaire politique yoonam nekku ci ñun bu ñu jëlee engagement ni ñun ñooy jaamu askan wi man politicien damay jàpp ne jaamu askan wi la ñun ñoo jàpp ne ñun ñooy jaamu askan wi askan wi ñun la wóolu di dajale ay dërëmam di ko dugal ci ci keesu contribuable bi ñu ci mën a dund ñun ñii pour régleel ko ay mbiram war nañu mën a teer suñu kërel yii ñu nekkee te toog jéem a trouver tok autour de l'essentiel, djema jéem trouver compromis djema xol nan lañuy développer dekk bi politiciens yi fi nek yépp war nañu mëna ñom manko don ben taxaw ci ginnaaw Macky Sall and liguey il n'est pas éternel bu jéxé kenen ñew ñi ñëpp àndandoo manko topat ci ginnaawam jappalé ko pour mu nek bénéfice Sénégal mais tant que ñu ngi def politique politicienne ku ci nek yaakar ne part suba di nga yéeg

ki leen koy defal nag mooy seen mbokku taalibe assan Gawlo Mbuub nekk fii alo Dakar TV international ñu leen di jox dig daje ak ñeneen ak ñeneen leen jox du dig daje ak yeneen fànn li nga xam ne moom moo am ci émission bi jërë ngeen jëf.